waxoo moom maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na xam sa sinina juróomi at wa daxalate mu tàbbi fi saa disati ci atum juróom-benneel ma bu fekkee ne gëleem ngay tëbaskee moom lu mu néew néew na am juróomi at ba dugg ca atum juróom-benneel ma li gën ci la ñu tëbaskee mooy mu nekk xar xar ma ci gën mooy mu góor ma nga xam ne kenn tàpp ko nga xam ne ba ñu tàpput moo gën ba ñu tàpp bu fekkee ñoo yem ak suuraay mbaa kóoy ma gën a suur su fekkee tàppaanga ma gën a suur nag lay door a gën boo weesoo xar mu góor nag nga jàll ci xar mu jigéen xar mu jigéen moo gën fi mu tollu béy wu góor bu fekkee mën laa tabaski xar nag bu nga jàll si ci béy nag xam ne xeet wu nekk moom wu góor wa moo gën wu jigéen wa wañu tàpputit moo gën wañ ca tàpp waaye nag fi mu toll tabaskee bay wu jigéen moo gën tabaskee nag mbàggaleem ndax tabaskee dañ caa taamu yàpp bu baax ba te yàpp gàtt moo gën a baax yàpp gëleem ak nag wala moo tax tabaskee xar ak bay moo gën tabaskee nag mbàggaleem bu dee la ñu rendi muy addu yi nag foofee ca béréb yu sellee ca màkka moom lu ëpp yàpp rek lañ ci gën a taamu moo tax bu dee foofa gëlee mooy gën nag topp ca xar topp ca bay féete suuf wayut taxaa def na wattandiku fi daxaayaa ci tabaskiya wal hadaaya ak addiya alxuyoo bu mboolem xeeti sikki yi falaa yu ji siw du doy fi daxaayaa ci tabaskiya wal hadaaya ak addiya axawraawu aji pat waxiya moom allati mooy ba nga xam ne zahaba dem na nuuru ixda xay nayxaa leeru benn ci ñaari bëtam ña muy tabaski muy addiyu lu mu ci mën doon lu ñuy jaamoo yàlla la kon nag wares na caa wattandiku sépp sikk bu dee sikk soo xam ne dañ ne moom bu ci amee du doy kon wattandiku ga ba mbañ caa am du mën a ñàkk bu dee sikk soo xam nee nañu nag du ko tee doy moom dañuy sopp rek nga jéem mu bañ caa am daa tàmbalee wañ sikk yi nag njëkke su pattee su pattee mbaa mu gumba doonte benn bët ba la rek jeex na doyatul tabaski doyatul addiyo wala maridatun du caagéenu aji tawat maradun tawat bayinan ji aji biir fekkee jur ga dafa tawat tawat ji wér a wér nga xam ne bu àndee ki moroomam dem rek nga daal di koy xàmmee ni kii daa tawat ba tey kon du doyati wala xar jaaw du caagéen aji làggi xarajan ak làggi bay nan gi aji biir fekkee dafa làggi làggi goo xam ne bu àndeek moroom yi dem rek nga daal di xàmmee ne kii na muy sooxe daal làggi kon ba tey doyatut wala xaji faaw du caagéen aji làpp waxiye moom allati mooy ba nga xam ne la chahma dit ne bon fiyaa muy nekk ca moom waxi li waxees na it ne xiye moom allati mooy ba nga xam ne la muxa dit gu yuq fi xisaamiha muy nekk ci yaxam bu làppee yooyu lool lool bopp du doy tabaski am nañu ne nag bu làpp dëgg-dëgg mooy bu amul gerees am nañu ne mooy boo xam ne yax yi amul yokk wala mashquqatul uduni du jaageenu bu ñu xar am nopp illa an yakoona dara bu dafa nekk ak shaqu xar-xar ba yasiran di aju néew wax wate moom ak tulusu mooy sulusu ba muy ceer ba wakasaani ki nii la xat xul udduni dagg nopp ba dagg nopp ba laa yu ji siw du doy illa an yakkoona tare bu dafa nekk yasiran di aji neew na nga moytu nopp ba xar mbaa nopp ba am lu ca dagg dem bu fekkee la ca dagg dem nag mbaa la ca xar bariwut daañu ko jéggale bu baree des ko jéggale néew ga nag mooy ceer ba boo ko defee ñetti xaaj daal moom nopp ba bu fekkee la ca xar mbaa la ca dagg day tolloog benn xaaj bi rek ci ñetti xaaj ne mbaa du ko mat sax jégale nañ ko bu ko ëppee nag jégaleetuñ ko wa kazalika naka noonu zahabu ak sari dana bi demuk la ëpp ca geen ba geenu gannaaw ba dañ ko fonk loolu moom dañuy jàpp jàppal ne geen bi ci gannaaw yëmawut ak nob ba moom bu fekkee geen boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba dagg na dem moom du doyati lañ ciy jégale kay mooy la ca dagg dem du mat benn xaaj ba boo ko defoon ñetti xaaj wa kasalika naka noonu mak suratul xarni ku ñu dam béjjén in lam yabra ndéem wérut fa in bari a ndéem wér na aji sa amu doy fekkee béjjén ba daa damm dañuy seet ba xam ndax wér na wala wérut su fekkee wér na rek baax na su wérut nag du doy wa amal xaqiqatu ndaal gàttu tudd fa mustahabat lu ñu sopp la waxiya moom addabihatu mooy lañu rendi allati la nga xam ne tudbahu def na ko rendi yawma saabihi wilaadatil mawludi ci bisub juróom ñaareelu judduk liir ba gàttu tudd lu ñu sopp la mooy gàttu bi ñu tuddee doom moom nag nee na dañuy xaar bañ ne tey la juróom ñaareelu fan ci ba mu juddoog léegi ñu door koo rendi te def ko ci yoor yoor lañ ci gën a taamu di tax dañuy wax juróom-ñaaral nag mooy duñu wàññiwaale bis ba nga xam ne ci la juddoo lu may nga xam ne daa jiitu fajar wala mu tolloog fajar jàppal ne tey jii nuy jànge nga xam ne tey la gaaw gannaaw fajar fenkee ba jant bi so ku judd ci diggante boobu rek da ngay wàññ juróom-ñaari fan te bañ cee wàññiwaale gaaw bis boo daaneel rek mooy doon juróom-ñaar doon bisu ngénte la su boobaa itam nag ci gaaw rek ngay daanuwaat ndax boo bàyyee gaaw tey tàmbalee wàññi dibéer altene talaata àllarba alxames ajjuma gaaw ci ngay daanuwaat mu juróom-ñaareel bi kon ngénte looloo koy taxa doon bu bis ba delsee nga takkaal nag ne bu fekkee kooku daa juddu ci guddi ga gannaaw bu jant ba sooyee jëm ñu noddu salaatu mbaa mu tombee képp képp te fajar fenk ñu noddu salaatu kon da ngay wañ juróom ñaara te waññiwaale bis boobu boole ci su boobaa nag kon bëccëg ba nga weesu bu desee mooy doon ngénte la mel ne ku juddu woon biig gannaaw bu jant ba sooyee biig daal la ca tàmbalee fajar fenk ku ci juddu woon rek da ngay wañ juróom ñaar te tàmbalee ko ci gaaw xam nga boo tàmbalee gaaw waññi nag juróom ñaar da ngay daanu ca ajjuma xam ne kon ajum mooy doon ngénteel kooka ndax boo ne gaaw dibéer altine talaata àllarba alxames ajuma ci ngay daal mu juróom ñaar ci takk-takk bi la noppal moom da ngay jàpp ne rek ku judd ci gannaaw bi jant bi sooyee ba kere ñu noddu salaatu mbaa mu tombeeg salaatu bëccëg ba nga wees ci gannaaw bu delsee moo doon ngénteem ku judd gannaaw fajar fenkee nag ba kere jant bi so nag moom bis boobu bu delsee moo doon ngénteem mooy takk-takk bu gaaw bi wa yushtaratu def na sart fiihaa ci gàttu tudd maa la nga xam ne yushtaratu def na ko sart fit daxiyat ci tabaski lu ñu wax ne mooy doy tabaski nag ba tey xamal ne mooy doy gàttu tudd li ne woon mooy tey ab gàtt mat tabaski rek xamal ne bu amee ci gàttu tudd ba tey jeex na du matati gàttu tudd ñu bañ a fàtte ne am tabaski wala am tudd kenn sañu caa jaay dara dara kay fees sax duñ ko jox ca ndawal ga la mu baaxoo am ci bu masaa fees dañ koy faye leneen lu bokkut ak lu bokk ca ndawal ga nañu moytu jël ca ndawal ga di ko jox docteur ba daa faj jigéen ji mbaa lu ko nuru mel ne loolu aada lañ ko def dañ koy moytu wa ama dabxu daal rendi fa huwa moom qatxul xulqoomi mooy dagg boliga jamihi yi léppam wa qatxul wadajeyni ak dagg yaay sadidee ko séq fala yuju siw du doy aqallu lu yéesu min zalika ci loolee day xamal dëgg-dëgg rendi mi nga xam ne mooy tax loola dagana lekk gannaaw bu loola bokkee ci dagana lekk rend gi koy tax a dagal nag bay xamle mu ne la mooy da ngay dagg booli gi ak yaari sadidee nga xam ne ñoo ko séq xam lépp booli ga dagg na léppi yaari sadi yooyee dagg nañ loolu amee rek dëgg-dëgg rende ngoo ko boo daggee lenn ci loolu bàyyi la ci des nag moom du doy wa dabxul mar ati rendi jigéen jaay suñ aji dagan la jigéen rendi wàññiwul dara fa in rafaxa ndem yëkkati na al daabihu aji rendi ji yabehu loxoom xanit dabihati wëris lañuy rendi baxda xattaxi baxdil xulqoo mi ci gannaaw dagg leen ni boli ga wal wadda jayin ak yaayu sadid ya suma axaar toog mu baamu yaddahoo loxoom fa aji xasaxaate mu jekkali ko lam tu ukal def ko lekk nee na boo xasee tàmbalee rendi ba nga xam ne tàmbali ngaa dagg boli geeg ñaari sadid yi nga xam ne soo bàyyi woon moom day dee kon gannaaw ba nee na boo yëkkatee sa loxo na nga fexe ba gaaw a dellu si boo yeexee dellu si rek moom mu daal di yàqu rendi ba yàqu loolay medd ne boo gaawee dellu si moom mu baax wax ji gën a wóor daal mooy boo yëkkatee sa loxo waaye gaaw ngaa dellu si moom la nga doon rendi rendi ba dana baax waaye ndegam demoon nga ba sori ci rendi ba boo yëkkatee sa loxo te yeex a dellu si rek doonte du ca sa coobare sax la nga doon rendi yàqu na medd lañ koy jàppee bu fekkee sori woon ci rendi ba na nga ko xaw a laal gaañ ko rek xam soo ko bàyyi woon day dund diwee nag kon moom loo yéex a yéex a ñëwaat baax na waaye boo ñëwaatee da ngay mel ne kuy door tàmbali rendi da ngay yéene rendi gi waxaat bisimillahi tudd turu yàlla mel ne kuy tàmbali rendi bu yees fa intama daa ndéem wéy na azzaalihum aji rendi ja xam dan ci ak tey xataa xatax ba mu dog ar sa bopp ba mina dabihati ca la ñu rendi asa ak kon ñaawal na teggiin watu ukaluwaay def na ko lekk nee na boo dee rendi te xiis-xiisal rek ba mujj nga tàggale boobu baag baat ba waaye teewul yaa ngi ko tàmbale woon ci bëli ak yaari sudi de ko seq kon boo demee ba tàggale boobu baag baat ba def nga lu ñu sib mooy ñaawal nga teg yéen waaye du tee rendi ba moom baax na wa man dabaxa ku rendee minal xafaa ci ak doq aw min safxatin xunuqi wala ci pegg doq lam tukkal def foo lekk fekkee da ngay rend da nga ko rendee ca doq ga mbaa nga rendee ko ci pegg doq ga doonte sar nga sax ba gannaaw ba nga dagg bëligaag séddije itam séddije ko seq itam du ca du baax du tax rendi ba baax rendi bi daal faaw da ngay teg jumtukaay rendi ja ca bëliga ak yaari séddije ya ko seq waaye boo tegee jumtukaay ba ngay rendee ca pegg doq ga mbaa ca doq ga ñoo ci yemoo donte wéy nga ba daggaale sax bëligaag sadidee ko seq itam du ko taxa baax wasifatu zabhi melaw rendi wa al mustahabatu wadi ñu sopp an yadaxa moo di mu tëral ak zabihata la ñu rendi xalaa yasaarihaa ci càmmoñam ba mu tawajjihatan mbir muy aji jublu dil xiblati jëm ci xibla wa yàqoole tey wax ak zaabihum aji rendi ja ne bismillahi wallahu akbar faye jimaxu tamuy boole bay nat tasmiyati diggante wax bismillahi wa takbiri ak wax ga allahu akbar wala yadhkuru te du tuddaale ma xat tasmiyati ànd ak bismillahi arrahmani rahim arrahmani rahim dañ gën a taamu daal ci reen yi mooy la ngay reen di nga tëral ko mu tëddee wetub càmmooñ boo ko defutoon du ko tee baax waaye mu tëddee wetub càmmooñ lañ ci gën a taamu tey mu jëm xibla booy ren nag moom tudd turu yàlla mënu caa ñàkk boo ko tayee tawxoo kenn du ko lekk waaye nag boo waxee bismillahi wallahu akbar boole ñaari baat ñooñu def nga lu ñu sopp boo yemoon ci bismillahi mu doy boo yemoon ci allahu akbar mu doy noo tuddee tur yàlla rek moom mu doy waaye nag boo ko tayee tuddee tur yàlla moom kenn du ko lekk waaye na nga boolee nii nag bismillahi ji ak allahu akbar ji loolu la wax ne taamu nañ ko te bañ a tuddaale nag arrahman rahim ndax ndegam ren daa xaw a metti moo tax ñu cay moytoo tuddaale ñaari baat yi te tula yërmande ci turu yàlla yi muy arrahman arrahim wala yu salli te it du julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuy ren di na tudd rek turu yàlla te buñ ca boole julli ci yonante bi sib nañ mu julli ci yonante bi fa in iqtasara ndem gàttañ lu na xaala tasmit ci wax bisimillahi aji sa ahoo mu doy ko nee na bu fekkee da ngaa yem ci bisimillahi boolewoo ca kàbbar ga allahu akbar du ko tee baax wala tarakaxaa doon te bàyyi woon na ko nisiyaaran ngir fàtte aji sa ahoo mu doy ko ittifaaxan ci dëppoo ñëpp su fekkee da ngaa ren di tuddoo turu yàlla waaye fàtte doo nga tax ñëpp maasal ci ne sa rendi ba baax na degam nek nga julli rek mom faté wax bismillah yi rendi du ko té baax wa kasalika naka nonu tuji ci fo dana ko doy law taraka ha don te bayyi won nako hamdan ci tay hinda lil qasimi fa ibnul qasim bu fekke ab julit nga bi ngay rend nak waxu bismillah te ya ko tay fa dess na ko lek am dess ko lek ibnul qasim mom neena mayes na ko lek batay ndax nek mu xass nga nek julit rek mom sak tay ñak tu tur yalla du ci dara wax ji gëna wër nak moy kenn du ko lek boko tay waxo tur yalla motax mu na wa mazhabul mudawwanati yoonu mudawwana moy la tuju ci fo du ko doy na mudawwana ande mom day weddi da ibnu qasim waxe mudawwana térelu buñu sukkandiko lol ci yoonu malik walaw taraka donte bayyi won ak tawajjuh jublu ga ilal xibla jëm ci xibla ajji sa ho mu doy ko walaw kaan ak donte nekkoon na am danti ak tey wallahu yàlla aalamu moo xam dëgg-dëgg jubale gi xibla moom ne nañ koo soppoon rek te maasa nañ ci ne moom boo ko tayoon bañ koo defit du ci wàññi dara te ñu lekk ko albaabu lii muy bunt bi ak taaminu bi ak juróom ñetteel fi shay'in ci dara min masaa'ili nikaahi ci masalay sey wa talaax ak pase te bëgg a dugg nag ci mbirum sey ak fase amma nikaahu ndaal baatum nikaahu fa ma'naahu mahnaam ci luxati ci langu arab duxulu sey mooy dugug dara maanaam mooy tàbbik dara fi sey ci dara yuqaal def na wax ne naka xat tàbbi na alxasaatu jàmbaraay ba jàmbaraay mooy aw doj ax faafal ibili ca ndafañi gëléem ya mooy ci weyi gëléem ya ak wa nakaxa tàbbina annaw mu nelaw alxayna bët ba wa fi sharhi bu dee ci yoon nag xaqiqatun ab dëgg-dëgg la fil xaq di ci fas ab sëy muy maye ab sëy majaasun te aw teggi la fil watt yi ci laal laal mooy jote góoru jigéen ci sawukaay daa wax ne baatum nikaaxu moom bu dee ci làngu arab rek la muy tekki mooy dara dugg ci dara niki ñu ne doj wa dugg na ca weyi gëléem nga baa ñu ne nelaw dugg na ca bët ba booy seet maxnaam ci shariha nag moom da ngay wax ne dañu ko jëfandikoo ci ñaari anam yu bokkut daañ ko wax juble ci fas ab sëy maanaam may may jigéen jëkkër daañ ko wax itam jublu ci alwattoo jote góoru jigéen ci sawukaay suñ ko jëfandikoo ci fas ab sëy loola mooy dëgg-dëggi la muy tekki dëgg-dëgg suñ ko jëfandikoo nag ci alwato loola aw teggi la la gën a dëgër daal tey cosaan mooy bu dee ci sariya buñ tuddee baatum nikaaxu day dellu ca may ab sëy amaana ñu wax ko nag mu dellu ca alwato jote góoru jigéen ci sawukaay bu ko defee mu nekk majaas di aw teggi قال وخنا بعضهم لين ci ñoom ne قال وخنا مالك مالك ni an nikahu sey mustahab ñu sopp la am ñu net le ci malik mu ne sey dal mom ciosan la ak sopp la man na dem nak ba aram man na dem itam ba nek lu war ba mu war mom moy bu fekke ne yow goor nga ba jigen nga go xamne bu fekke seyo rek do mëna mom sa bop faaw rek nga moy yalla su boba kon tak ka du mëna ñak di jigen tam faaw na fay ba am jikko ak num ko amé di goor fa tak soxnay aramé moy su goor gi xamé ci bopum né mom bu tekul soxna yit du ko taxa moy yalla boole ca nak ya nga xamné mom la tak soxnay laaj ak yoré ga soxna la muy laaj mom mënuko amuko ko kon day aram ci mom muy tak soxna ndax kon da ci gaddu ay àq ki tooñaangi rek ba tey ñu xamle foofu ni jigéen bu ko wóori ni moom amul jëkkër it du ko taxam mooy yàlla bu ko neexee toog rek bañ wut jëkkër góor it noonu dañoo sopp ci moom rek bu ko mënee mu wut soxna waaye bu fekkee ne wóor na ko ne su wut soxna itam moom du mooy yàlla it kon mën naa toog rek bañ wut soxna waxtu dafa wóoteef na fii ci moom fi zaman na ci sunu jamono ji haza jile fa qala waxna ba'dhum len ci ñom ne tarku fo bayem ga wa istixaal akuk soxlawoo bil ibaadati ci jaamu yàlla ga maxaafata xadamil xiyaami ngir ragal ñàkk taxaw bi xuquuqi sawjati ci ak soxna sa afdalu moo gën wa qaala wax baaduhum leen ci ñoom ñi ak tasawuju takk ga soxna afdalu moo gën wa yejjitaxit dana farlu fil xalaali ci sàkkulu lew maa qadara lam man fa in lam yejjit ndéem amu ko fal mutashaabihu kon aji lënt moo fu sës mu ne suñ jamono ji dañ cee wóote ba xam féetewoo jaamu yàlla rek moo gën wala takk soxna moo gën ñenn ñi nee nañu bañ a takk soxna te féetewoo ci jaamu yàlla ndax ragal ne boo takkee soxna àq ya nga ko ameel du mat faaw nga gàddu ci àq ñu ne kon ñoom féetewoo jaamu yàlla te bañ a takk soxna moo gën am ñu ne déedéet takk soxna kay te sàkku ci tuyaaba yàlla jéem a am lu lew loo koy dundalee ka woddee ka dëkkale su mënta am lu lew it jàpp ci lu lënt ñoom nee nañu loola gën wan nikaaxu an nikaaxu nag bi maanal wattu yi ci maxnaam al wattu u laal laa yajuusu dagan fi sharxi ci yoon illaa bi ahadi amrayni ndara ci kenn ci yaari mbir xaq di nikaaxin fas ab sëy aw milki yamin wala moom ndey jooru ki xawul si ngir waxi borom bi temps laa kawe na wala si na ak gaa yi nga xam ne hum ñoom xaafizoona way wattu lañu way sàmm lañu li furoo ji him ñeel seeni pëy illaa xalaa azwaay ji him ndara ci seeni soxna aw maa wala la nga xam ne malakat moom na ko ay maanuhum seen loxoy ndey joor al nikaaxu nee na bu fekkee daawi maanaam al wattu jote góor a jigéen balaa dagan ci lislaam rek kenn ci yaay mbir yi moo koy tax a dagan benn bi mooy ñu fas ab say diggante góor a jigéen loolu daal nay maye kon ñu jote ci sawukaay ñaareel ba mooy jamono yi jaam amee boo amee jaam yoon da lay may nga joteeg moom moo tax suñu borom ba muy tagg ci alxuraan ñu gëm yàlla dëgg-dëgg baral na ci ñi nga xam dañuy sàmm seeni sawukaay bañ ko dugal fenn fu may ci yaar yi benn kooko di seen soxna mbaa kooko di seen jaam bu jigéen boo xam ne ñoo ko moom te amul luy tee ñu mën a joteeg moom wan amul aj jëkk ja lëxoo ñeel na ko arkaanun ay ponk arbaxat ñu di yent al awal la ci jublu boo tuddee an nikaaxu jublu ci al xaqdu maanaam bu fekkee da ngaa jublu an nikaaxu fas ab sëy kooku la wax ne am na ñeenti ponk daa wax ne maye ab sëy am na ñeenti ponk waaye sëy booy jàpp ne juróom la ndax bu dee wàññi ca wàññi ba day am lum ci lëntal tuuti rek waaye sëy booy jàpp juróom buñ fa àggee daanu ko leeral al awalu bu njëkk bi al wali yu moo di kilifa balaa yosixu du wër al xaqdu fas ab sëy bi dooni yi ci lu kilifa waaw nee na kilifa mënta ñàkk ci ab sëy faaw rek faaw rek am koo xam ne ci yoon mooy lif jigéen ja te war koo maye koo ko maye ko kon mënu cee ñàkk waaye fi saratu def na sart fi wal yi ci kilifa ga shurootun ay sart kilifa googu war a maye soxna si am nay sart min ha bokk na ca ittifaaqu diinay ni dëppoog yaari diine ya fala yuzawwiju du sañ a seyiloo alkaafiru yéefar ba al muslimata julit bu jigéen ba wala lu muslimu déet julit bu góor ba tey muy mën a maye alkaafirati yëfar bu jigéen ba nee na faaw kilifa gi maye moo jigéen ja muy maye dañuy bokk diine mooy góor ga bu dee yëfar du mën a maye jigéen joo xam ne julit la wala du am ko moom ba tey julit bi duñ ko may muy maye ab yëfar ab julit du sañ a maye jigéen joo xam ne yéefar la lu may nag lee mu ca teg illa an takuna ndare bu dafa nekk amataxoo di jébéeram aw ma atoo xataxoo wala muy kam goreelam fa innaxoo kon naka moom yusow wu juhaa dana ko sañ a maye yow jullit bu góor nga waaye da nga am jaam bu jigéen boo xam ne yéefar la kon mën nga koo may ab yéefar ne moom ba tey bu amee jigéen joo xam ne yaak goreloon xam lay sopp ku na gor waaye na yéefar la kon bu nekkee yahudiya ba nasraniya nekk ci kenn ci yaari diine yooyu man nga koo may kon ab jullit te du wàññi dara bu fekkoon na nag moom daa nekk majusiya nag moom doo ko mën a may ab jullit ab yéefa rek nga koy mën a may waaye ndegam daal sa jébbir dëgg mooy sa jaam la dëgg-dëgg mbaa yaa gore loolu moom da nga ko mën a maye yow jullit bi moom mu yéefar yow nga jullit wa min xaa bokk na ci alxurriyatu ak ngor faaw kilifa gi maye gor lay doon jamono yi jaam amee jaam du mën a nekk kilifa mooy du mën a maye soxna fal xabdu jaam ba wal mu kaatabu ak kañ jotoonteel wal mu dabbaru ak kañ gannaawal wal moo taqu ak kañu goreel ba aduhoo lennam yuf saxu def na firimaa la nga xam ne xaqadoohu fas nañu ko wala ba àdda duxooli ak doonte ci gannaaw wéet ga la wala xaa ñeel na jigéen ja almahru can ga bil masi si ca laal ga ka maye bu dee jaam bu sotti mbaa mu laal ci njaam rek faaw ñu tas sëy boobee bu fekkee bañ koy tas fekk na ñu jote ñoom ñaar nag faaw ñu jox jigéen ja can ku laal ci njaam mooy ku mel ne kuy jotoo maanaam di fay ab sangam nangam ci alal te gore kuñ gannaawal kee it mooy ko ab sangam wax ne ko su ma deexee gore nga ak kuñ goreel lennam bàyyi lennam niki ab xaajam di gor ab xaajam di jaam dindi say ba waaye nag ndegam bi ñu dindi say ba fekk na jote am seen diggante ñoom ñaar faaw ñu war a jox jigéen ja can wa minha bokk na ci sart ya inda baadihim fa leen ci ñoom an yakkoona mu nekk an yakkoona mu nekk xayra mu wallan di kudul ku yilif xale yi ci moom al mu walla xale yi jubluñ ci ab jaam mbaa kuñ masa moom ndax loolu weesoon nga léegi bu dee jaam ba moom al mu walla xale yi dañ cee jublu as safiifu rek bi ñuy firee ci wolof aji gàtt xel fekk na jubluñ ci gàtt xel dëgg-dëgg am noosóor rek lañ ci jublu koo xam ne bu yore alal rek yàq ko mooy asafiihu ku mel noonu bu dee ci yoon faaw dañ koy boole koo xam ne moo moo yoon ay mbiram balaa yàq alalam ku mel ne kooku am nañu ne ba tey du mën a maye soxna mooy mu yàkkoon ak mu nekk xadalam di aji maandu am na ñu sartaale kilifa day maye faaw na nekk ku maandu bu mu nekk kuy def xeeti mooy yàlla yu rëy yi di ko fisal ñu jàkkaarloo moom wal mashhur lañu siiwee nag mooy ànnal fisxa naka caay-caay ga laa yaslugu du rekki al wilayata kilifteef ga wa innama yaqdahu naka dana jam fi kamaalil xaq di ci matub fas ga duuna sihatihi ci lu dul wëram ga wax ji gën a wóor mooy kilifa gay maye nekk ab saay-saay du tee maye ga baax tey def nag bu fekkoon nekkutoon saay-saay lay gën a baax wa yaqidu dana sañ a fas asafihu aji desee di ja du rëy kay boroom xalaat xaalab na tiyi ci doomam bu jigéenam ba bi it ni wàll yi ci ndigalul kilifaam nga asafihu mooy almuwalla xale yi bi nga weesu woon léegi nekk ab noosóor nag boo yoree sa alal yàq ko téewuta am diine téewuta rafetum xel ku mel noonu la ne nag bu fekkee rafet na diine rafetum xel moom ci bopp mën naa maye doom bu jigéenam gannaaw bu ci diisoonteeg kilifaam ga nga xam ne moom lañ ko booleel ndax mu yoral ko alalam wa min ha bokk na ci albuluuxu ak kàllafe wal xaqlu ak xel wal dukkooriyatu ak ngóor faaw kilifa gay maye day nekk mag bu dee gone du mën a maye dañuy sartu mu am xel bañ a dof bu xasee dof rek du mën a maye dañuy sartu muy góor jigéen du maye mukk du maye boppam du maye keneen mooy falmar atu jigéen ja laaye joo sur dagan xàqu du xaa fasam nga mooy mayeem nga xalaa nafsiha ci boppam wala xalaa xëyriha du caageenu ci kudul moom jigéen mënta maye boppam mënta maye keneen wala xaa ñeel na ko antu fawwida mu féetale may ga li man ñeel koo xam ne yaaqidu dana fasal laxaa ñeel ko min rijaal ci góor ña fii taswiji nafsiha ci maye boppam wa fi amatiha ak ci jébéeram ba alxinni kay jaam bu sotti wal mu ataqati ak kañu goreel waman ak ka nga xam ne xiya moom fi isaiha nekk na ci ak dénkam bi ne jigéen mënta maye bopp mënta maye keneen dañoo bëgg a wane ne bu fekkee ne am na ku yilif koo xam ne doon gam doon jigéen rek moo tee mën koo maye waaye bu doon góor mu sañ koo maye kon sañ naa seet góor goo xam doyloo na ko ne ko yow day mayel ma kii nga xam ne maa ko yilif ni ki koo xam ne jébbéeram la jaam bu jigéenam la mën naa nekk jaam bu jigéen bu sotti ak njaam mën naa nekk itam bu laal ci njaam te sotti wut ni ki kum goreel leenam bàyyi leenam wala sax koo xam ne moo ko goreeloon moom kilifteefam wala kuñ ko dénkoon mu yore ko yooyu yëpp moom jigéen ji mën naa wax ak góor ne ko mayel ma ko nga xam ne mooy joxe ndigal bu maye ga te moom mënta maye moom ci bopp mi tam bu fekkee ne amul kilifa gu ko war a maye kon dana sañ a fekk mbokkum jullitam ci lislaam mu ne ko féetale naa la saa mbir kon nga maye ma waaye nag bu amee kilifa ci yoon moom kilifa googu ci yoon moo ko war a maye arukunu ponk ba asaani bi aj ñaareel asadaaxu mooy can nga falaa yosi falaa yosi hu du wér